gars yi képp kuy influenceur te mos a taf C50 PN bii nii nii bu yeboo nag nga génn wax dëgg bi quoi war na alxuraan kay ndax président Sonko jàppoon nañ ko fi influenceur yëpp di topp président Ousmane Sonko comprends nga man nag lii xaw ma ni affaire de politique la quoi parce que man su ko xamoon man man Fallou man cent ans quatre dimanche su ma doon fay ay milliards du ma si mës a mës a mës a mës a ñoo déggandoo fàllu gaa ñaa ngi commencé di retirer seen i contrat ndax xam na nekkul ñu ci yoon jeunesse baa ngi leen commencé sonal mami ko nag ba mu yëgee rek ñii ñi ngi démissionné daf ma vocal ne ma léex ñii xanaa danoo def ñuy démissionné ah lu tax ñuy démissionné nit ñaa ngi waaj a yokk deux cent soixante la woon mais léegi ñu ngi yegg quatre cent mais loolu mënu ma koo gëm parce que ñoom danoo commencé yàqu la mami li ma wax mënu ma koo gëm man dix millions naan ma tegal quinze millions naan ma Ablaye si la nit ku baax la ma saagal la ngor sénégalais pour li ngeen ma xamul ko quinze millions mi ngi tege pour wax ji jeex ni mu naan ay quatre cent personnes amaan nañ ko six cent personnes ak yooyu du dëgg man Adama xanaa Sénégal yi yëmeewul man noonu gis li may doxalee ñii ngay dem di ci dugaat dofuñu jinne jàpp leen Sénégal yi xam nañ Adama lu nu dof dof xam nañ ne Adama day teegal seen day kon lii mënuma koo gëm yéenewul sax maanaa li ma leen di wax mooy takku leen ba dëgër xaar ku deful comme ñoom gëy stress jéggalu sénégalais yi toog lu leer ci taabal ji di jaay affaire ouragan ñu tepp sa lëfal nday nag déglu vocalu mamiko yi barki yàlla billaahi influenceur yokku dañ léegi quatre cent lañ yow xaaral xaaral da nga am na ñuy posté lundi mardi jeudi xaaral di nga gis ñu bees tàq aadamoo yow kii daa dof bay démissionné ñu de ñu de deux cent trente influenceur lañ woon mais tey jii nii nii information yi ma jot ñu ngi ci quatre cent influenceur yow Ablaye Sylla am mille huit cent employés mille huit cent employés bu ki nekk bu ko indilee vingt parrainage ay parrainage en wér yéen wér ngeen yow est ce que yow Adamo est ce que yow xam nga vraiment kan mooy Ablaye Sylla xam nga nag booy xeex ni da ngay dem gëstu ji ko xam mooy kan xamoo ko de xamoo Abdoulaye Sylla mi nga xam ne moo tabax autoroute Ila Touba xamoo Abdoulaye Sylla nag sama waa ji ndaa naan la nag de la rëq rek lay def. Abdoulaye Sylla du lafal ndeyam maa ngi jéggalu ci saaga yi Abdoulaye Sylla du dara dara nekku ko ñii du Ba la topp ñii di topp ki nga xam ne moom mooy. Ousmane Sonko parrainage si lay sàcc ngeen di dugg ci kër mairie di jël ay carte d'identité di jox ay nit naan di ni wutal ay pièces xaalis bi ngay joxe ci kaw ci kaw nga koy joxe doo laaj carte mais boo wàccee ba si suuf ngeen leen koy laaj mami ko may ma jàmm bu may. yéen man damaa dëgg bu ma bëggoon xaalis jamono jii maa téye affaire yi man la ñuy fay mais defuma loolu jeunesse bi nag jàppaleel ma ci combat bi c'est pee lu nuroo couleur yooyu foo ko gis dugal leen seen lëfal ndeyam jeunesse bu dof dof lu ba dugg ci lii dinaa xëddee sa lëfal ndey Afrique mon Afrique Afrique des fièvres guerriers Afrique que sente ma grand-mère au de ce problème wettan mais je n'étais jamais connu mais moo na garde près de sa doo boo sanwa sota garbat nu David Diop sa biir dëgg lëfal ndey jër mu laay saw rof ko sa lëfal ndey mu naan saaya baloy saaya nduree teetee sam si sama ruusi ah saw jinne kur jinne kar jinne lekk sa lëfal ndey baax